seeni différente émission rawatina émission bi nga xamante ni mi ngi tudd Guissé ak la rencontre avec alors tey on a plaisir de recevoir euh, en exclusivité ki nga xamante ni je pense que sénégalais yi wala sax ñu bari ci ñoom ñu ngi ko découvrir keroog ba ki nga xamante ni moom mooy Bassirou euh, Diomaye fay bi muy prêter serment fële ca euh, centre bi ñu ab du Diouf bés boobu nag benn fait bu marqué sénégalais yi mooy ki nga xamante ni mooy Macoumba Sarr di ancien légionnaire française di xaritu Mamadi Doumbouya suñu waxee Doumbouya nag suñu xel dafay dem ci président bu Guinée bi bi nga xamante ni le 5 septembre mu defee coup d'état ci Alpha ñoom ñaar ñu am jaar-jaar nekk ay xarit bi ñu dajee nag foofu ci la ko daal di feeñ moom Macoumba Sarr la ca topp loolu yëpp bokk ci lu ñu war a waxtaani tey nag euh, daanaka sax su ma jumul invité nañ ko fële euh, Korité bi foofu ci Guinée loolu tamit dinañ ko daal di waxtaani mais en tout jàpp leen ni euh, monsieur Mamadou Macoumba Sarr voilà moom la ñu dalal war a séq ak moom waxtaan fii ci Sans Limites TV Macoumba maa ngi lay nuyu di la waaw maa ngi lay nuyu di la fay. Mm-hmm. Eh, comme ni nga ko waxee rek man maa ngi tudd Macoumba Sarr. Mm-hmm. dëkk euh, dakaar mm-hmm. waa di yëngu ci lépp luy wàllu développement nekk opérateur économique. voilà di leen di kontaan si dalal bi ngeen ma dalal tey aussi. dalal bi ñu la bi ñu la dalal donc wax nga wax naa ko sànq en fet euh, ni yàgg Dumbia dafa am foo leen daje euh, ñu ngi koy faral di wax légion nière française voilà di kuréel bi nga xamante benn pàcc la ci armée Sénégal armée française bi bu ñuy faral di intégrer ay de déjà d'abord naka la demee parce que am na ñu naan guinéen nga ñu naan sénégalais loolu mm-hmm. lan nga ci wax d'abord. dëgg la waaw man doomu Sénégal la. Mm-hmm. fii laa juddoo fii laa màggee ba ba may am ay. 18 ans si la immigré dem euh, bitim réew fu ñuy wax euh, France. Mhm. daanaka armée yóbbu moo fa woon sax waaye euh, marchand ambulant moo fa yóbbu woon. Mhm. naka noonu si la découvrir ne am na armée bu nekk biir France boo xam ne day recruter ay étrangers. Mhm. waaye doomu réew moo mënti doon boo demee foofu am na ay yooy yooyu jàll test physique des tests psychologiques des tests psychotechniques. boo ko admee dañ lay daal di jël nga intégré armée bi ñuy wax mooy armée française. waaye man doomu sénégalais la. doomu sénégalais la alors euh, ban année duggoon France. waaw man maa ngi duggoon France en septembre 2002. Euh, si la jógee fi Sénégal et puis dugg bi France pour euh, immigrer comme ni mu ko waxee et def test yi nga xam ne mooy test légion étrangère si unité boobu yàlla def ma bokk si ñi nga xam ne ñoom lañ tànn pour intégrer armée bi. si ñaata personne la waaw en général foofu ba fa nekkee chaque semaine euh, dinañ doon am ay cent cinquante ba deux cent euh, ndaw yu fay daje. Mhm. chaque deux semaine bu defee suñu présélection souvent dinañ jël benn treize environ sur euh, chaque semaine benn treize sur. deux cent personnes. waaye mhm. euh, environ yooyu moo nekkoon euh, nu mu tudd affaire bi classement bi. Mhm. d' accord mbir mi bi mu amee comme ça voilà en fait du ñàkk dañu lay defaral papier. Mhm. intégré la carrément ci liggéey bi. donc moment boobu nan nga koo dundee en tant que sénégalais vu que da nga demoon pour marchand ambulant affaire bi demee noonu nan nga ko dundee moment yooyu. waaw ndogalu suñu borom la rek ndax euh, voilà comme ni ma ko waxee loolu yóbbu mu fa woon dem di intégrer armée étrangère. Mm-hmm. et dafa fekk ma dem voilà te ba may dem aussi dafa fekk euh, j'étais très très sportif et aussi jàngoon naa mun naa yenn minimum yi si wàllu jàng. def test yi mu réussir ma xam ne am na ay avantages avantage yi voilà di nga am papier beneen avantage mooy weer dee tu seras avantage mooy di nga am expérience yi li ñu lay jàngal foofu et aussi di nga def beaucoup d' parce que réew yëpp la ñu wër daanaka ak boobu di dem pour xeexal dëkk yi nga xam ne jàmm amu fa. voilà yooyu yëpp ay avantage la moo tax ma dugg fa waaye man nag kayitu dëkk boobu fu nu ma ko jëlee dafa am li ñuy wax. Euh, Euh, naturalisé pour le sang versé. am benn décret bu am foofu bi France buy wax ne bu fekkee da ngaa tuur sa deret ndax euh, réewum France euh, dañ lay jox seen i këyit. <laughs> voilà man noonu la noonu laa amee suma naturalisation français. Mm-hmm. Mm-hmm. voilà boobu macha allah bi ñu demee ba ba mbir mi avancé. Mm-hmm. lan moo indi accident bi nga baal ma ci question bi. lan moo ah, indi. waa du coup foofu la li ñuy wax rek risque euh, di métier ku xam ne militaire moom booy dugg euh, yaa ngi dugg mais sa dugg nga xam xamoo ndax di nga fa génne waat entier. Mm-hmm. xamoo ndax di nga fa génne waat sa bakkan. Mm-hmm. voilà ñun suñu liggéey moo nekkoon dem ay opération di dem ci ay théâtre yu nga xam ne ay. Euh, xeex moo fay am théâtre yoo xam ne mm-hmm. pour défendre ay territoire yu nu mel moo fa am voilà ñun déjà ba muy dugg ba muy dem sama mission sama bopp je me préparais déjà que ne fu may dem leerul ne dinaa fa ñëwaat ak sama bakkan mais comme ñoo ko engagé et on est obligé d'y aller jusqu'au bout foofu la ma ndogal boobu dalee ba ñu ma nekk paralysé des membres inférieurs et comme nu yàlla rek je l'ai pris def loolu si gannaaw xool li nga xam ne euh, sama kanam lan moo ci nekk ma commencé ko nu tudd commencé ci depuis ba ma blessé mm-hmm. calcul bi la wala lan la en man maa ngi nekkoon si bu ñuy wax ne légion étrangère légion étrangère c'est une unité spéciale. Mm-hmm. oui et en général suñu mission yi c'est des missions yi nga xam ne. Euh, mission secrète la. Mhm. et ñu mën a nekk di prononcer aussi lieu. Mhm. wala circonstance yi nga xam ne mhm. la ñu blessé. et dañu koy daal di dañu koy aay daal. waaw d' accord comprendre naa mais je pense que nit ñi dinañ am à peu près. dinañ am aperçu un peu <laughs> ndax soldat buy buy dem buy dem xare rek. à tout moment loolu yëpp mën na ko mën na ko fi di ci jaare di nuyu suñu militaire invalide yi. invalide yi nga xamante ni ñu ngi ci biir Sénégal. alors euh, sa diggante ak colonel Doumbouya je pense que 2002 nga fa dugg mhm. moom ban période la waaw man maa ngi dugg foofu 2002. Mhm. et at yi ci topp juste lañ la ma fekk si en deux entre 2003 et 2004. Mhm. si les rejoindre les ran de la légion étrangère. puis ba mu ñëwee aussi voilà de formation ba pare ñu ñu affecté man lañ njëkk fa affecté deuxième régiment étranger d' infanterie moom aussi ñu affecté ko même régiment ñu nekk foofu et comme dafa bëri ay nationalité mhm. euh, bëri ay race bëri ay religion en général ñun ñi nga xam ne ñoo bokk suñu Afrique nekk ay déer bu ñuul dañuy jàppalante suñu biir et heure bu nga xam ne dañoo am temps libre ñuy nekkandoo suñu biir mm-hmm. et arabe yi dañuy def la même chose euh, latino yi dañuy def la même chose européens yi et même les asiatiques ils faisaient la même chose au sein de la légion loolu moo tax ñu xamante woon foofu ba daal di nekk ñu jege ndax dañ doon ndékkeendoo di añandoo ensemble pratiquement tous les jours bu ñu nekkul en mission mm-hmm. ngeen newoon ba amitié bi dugg foofu ndax dafa bokkoon ci sa peut mu naa wax meilleur ami si si fi ngeen nekkoon avraiment bi ngeen nekkoon wala juste dafa nekkoon un ami parmi les autres. waaw moom nu mu tudd euh, jegewuñu woon noonu maag moom ba ñu nekkee si armée bi cent pour cent. Mhm. waaye ñu légion dafa am benn lu ñuy jàngal foofu. Mhm. légionnaire bu nekk. dañuy wax ne ceton ton frère d'armes mm-hmm. ko war a jàppee comme rakk bi nga xam ne wala mag bi nga xam ne moom nga bokkal euh, ndey ak baay mm-hmm. gaa moom moom euh, am na ay at yu bëri yu nga xam ne moom ma ko màggee waaye ay frère lañ nekkoon bu ñu nekkee foofu bu weesee loolu aussi man bu ma nekkee si armée bi euh, jayu ma sam bopp waaye dama nekkoon ku nga xam ne dama doon sagal deer yu ñuul yi nekkoon foofu noonu mm-hmm. et parce que comme nekkutoon concurrence mais kenn ku ne voilà sa amee benn waaw benn koo xam ne sénégalais bu fa defee record wala def euh, nu mu tudd loo xam ne lu rafet la dañ koy distinguer si kanamu voilà nawle doom kii monde bi yëpp mm-hmm. woon dama fa woon am ay épreuve yi da am dama tous les soldats di ko loolu dafa demoon ba man dama nekkoon en quelque sorte koo xam ne xaritu nit yu ñuul yi ne foofu yëpp xaritu aussi légionnaire yëpp laa woon aussi li ma dal nii boo gisee ku mu dal nga yor si ñaari tànk di daan sa doole et puis dara fekk la ci loolu en général nit yi dañuy am cofeel si yow dañuy nu mu tudd dañ lay daal di am si yow yërmande mhm. voilà loolu nag moo tax euh, peut-être après bu ma li dalee a jege bi am fa la ko fekkoon wala fa ko fa ngeen fekkoon fekkente woon ci moment boobu. ñu hmm. ngi nekkoon foofu. waaw moom ba ñu demee foofu de hmm. euh, moom dama leen bàyyi ñoom si régiment bu ñu nekk foofu. Hmm. ñu affecté ma si beneen régiment. voilà du coup xam nga régiment légion dafa am ay spécialité waa ñii di def combat forêt ñi def combat désert ñi def ay combat localité ñi di def génie dafa bëri ay spécialité yu nekk foofu du coup man ak euh, bu ma demee bu ci biir am ay yeneen diplôme yu ma am mm-hmm. am ay yeneen grade yu ma am gars gis ne war naa baax pour dem servir beneen foofu si lañ ma jëlee fu ma nekkoon yóbbu ma fu nga xam ne moo gënoon kawe mm-hmm. euh, fi ma nekkoon